asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sama bokk yi sama xarit yi gannaaw bu ma leen nuyoo maa ngi leen di yëgal ne waxtaan wii ma leen di yónnee war wala boog ma leen di yónnee waat maa ngi ko amoon ak pap Papa Ngagne Ndiaye mu TFM ci émission boobu ñu tuddee faram fàcc jataay bi mi ngi amoon fukki fan ak juróom ci weeru décembre deux mille vingt et un weeru décembre yu mujj ci deux mille vingt et un léegi mu mat ñaari at li tax ma bëgg ko partage waat maanaam yónneewaat ko ñi ma xam ne dama jàpp ne maa ngi ñoom noo bokk bëgg sunu réew mi waaw maa ngi ñoom noo bokk njiit bëgg njiit lu jub tubarkalla tubarkalla ñooñu rek laa tànn ñu mel ni yéen yónnee leen ko dafa am sama lu ma gëm lu ma ci firndeeloon te ma gën koo gëm tey te wóor na ma ne ñu bari ci yéen da ngeen jubóog man ci loolu ñu bari ci yéen nag laa wax léegi nu àgg février 2024 fi ñuy amee tànneefu njiit li nga xam ne mooy war a wóotu Macky ci sunu réew mi yàlla na sunu borom bi def muy njiit lu ko mate yàlla na sunu borom bi def muy njiit lu jub yàlla na sunu borom bi def muy njiit loo xam ne dafa fab njëriñul Sénégal teg ko ci kaw bépp njariñ yàlla na def muy njiit loo xam ni du nu wor mukk ni nu Ablaye Wade wore woon ak nii nu Macky Sall wore sama ngëm-ngëm man leeraloon ko ci émission bi te mooy li ma gëm tey dama koy wax di ko bind njiit loolu képp ku laal ci Ablaye Wade walla nga laal ci Macky Sall waroo nekk njiit loolu bu nu yàlla bëggee tuuti rekk njiit loolu wóoti wóotu Macky du doon ku laal ci Abdoulaye Wade du doon ku laal ci Macky parce que ñooñu ñaar ñu tudde la famille libérale benn fan ci weeru avril 2000 ba nëga léegi mu man ñaar fukki at ak ñeent ni ñu yore réew mi dafa jéggi dayo ci yàq-yàq yàq nañ jikko yi yàq nañ alali réew mi yàq nañ jikko yi yàq nañ alali réew mi te senegal tooñul suñ borom lu toll ni février 2024 kay wuutu Macky Sall ci ñoo ñi lay bokk man di jàpp ma ni tooñ nañ sa borom tooñ bu tol noonu looloo tax wax dëgg yàlla Sénégal lu ñu mën a def ba képp ku laal Macky Sall laal ci Abdoulaye Wade février 2024 wala mars 2024 bu deuxième tour amee que Sénégal yi jox seen kóolute day doon ku laalul ci ñoom ci nii wala naa ku yàlla jubal yàlla na ko sa borom bi def moo tax bi ma dégluwaatee waxtaan wi ma ni ah waxtaan de tey la gën a actuel maanaam tey la gën a ànd ak jamono juróom benn weer rekk nu desi ci euh, élection présidentielle dëgg-dëgg Sénégal yi war nañoo seetaat bu baax a baax lii may wax nag maa ngi koy ci biir émission bi am na ñu ne damay bañ du ma bañ ma Samba du ma bañ ma dem bañu ma Ablaye Wade bañu ma makki Sall bañu ma Karim Wade bañu ma keneen ku laal ci ñoom seeni jëf laa bañ parce que du jëf ju yàlla gërëm dama ni jëfi Ablaye wadd ak Macky Sall du jëf ju yàlla gërëm amul benn werante mën naa ko wax yàlla kenn du ko nutut wax ci caaxaan dama ne jëfi Ablaye Wade ak jëfi Macky Sall boobaak léegi léegi mën ñaar fukki at ak ñeent du benn jëf ju yàlla gërëm ndax fiñ ko teg waaw loolu tax ma gëm ni 2024 dañ leen war a fab teg te al nu mu tuddati fabri bi dénk ko koo xam ne kii wax dëgg yàlla dana wute ak ñooña donc looloo tax daal ma ni naa leen ko yónneewaat waaw maa ngi jégalu nag bu baax a baax a baax parce que léeg-léeg ma leen di yónnee yu mel nii dama jàpp rek ne yéen ñii ma ko yónnee noo bokki bëgg-bëgg bëgg-bëgg yi noo noo bokk bëgg lu jub noo bokk bëgg lu baax noo bokk bëgg loo xam ne lii moo gën ci sunum réew loolu rek a tax ma tànn leen di leen yónnee yu mel nii waaye du pour di leen sonal ak yooyu maa ngi jégalu bu baax a baax jëm nag ci ay élection hmm. locale hmm. élection yi xam nañu ni sa sa position moom yaa ngi ci opposition bi kon mën nañu jàpp loolu maa ngi ci hmm, ànduloo ak ñi ànd ak Macky yaa ngi ànd ak ñi nga xam ne ñoo bokk yeewi yeewi askan wi man man de Macky Sall di moom ànduma ak moom wax dëgg yàlla te loo xam ne li yaa ngi ñu ngi koy def pour jële ko fi it te jaarale ko ci yoon danaa ca bokk lépp loo xam ne ñi ngi koy teg te jaarale ko ci yoon pour jële fi Macky Sall jële fi képp ku masalaal ci Abdoulaye Wade loola dinaa ca bokk lu ma mën dinaa ko ca def mais yaakaar nga loolu di nga ci mën a am succès ni nga ko waxee parce que ci jamono boo xam ne ñoom ñoom libéraux yooyu nga fi bëgg a jëlee dama ne ñi ngi gën a taxaw ñi ngi gën a am doole waaw yow yaa ko wax ngi gën a taxaw loolu yaa ngi ciy teg sa bët man kay teg ma ci sama bët ñoo ñoom mu ñu doole les libéraux amuñu benn doole ils ont énormément de faiblesse ca kaw lay Wade ba kii fi nekk tey amuñu benn doole faiblesse yu wér wér te wallaay dina feeñ bis parce que lii ñu def rek du mën a lu mu yàgg-yàgg dañ ko tegaat sur la table du mën a bii mhm. euh, defuma man xam nga man mënuma man rek am nañu koy wax naan ñu naan ma yow nangam Sénégal yi mënu mënoo leen soppi xam nga pam ngañ man je si suis si aussi naïf ne soppi sénégalais waaye nag ni ko wolof waxe danaa bay son waar ci tool bi loolu rek lay def. Mhm. li ma man non di nga alerté. waaw jeex na képp mhm. koo xam ne kii daal yaa ngi jëf jëf joo xam ne ji mi ngi jëm ci jële fii Macky Sall ak lépp lu laal kéem boobu. ànd na ma ak yow foofu waaw néew ma nag daa leen ba jël xalaatu ko. kon kon kon bokk nga ci mën nañ la jàppe opposant opposant bu dee koo xam ne kii day nguur gi li muy def àndoo ci moom dara loolu taxaw aussi pour xeex ko ah damay xeex nag lu ma mën bu fekkee ne ni xeex mooy wax li ñuy def muy tey muy lu ñaaw a ñaaw nguurug Macky Sall nguurug Abdoulaye Wade yi nga 2000 1er avril 2000 ba nëgë ni walay pap ngañ li fi xew jéggi na dayo Sénégal rek la mën a xew te dara du ci mujj te bu ma gisee Sénégalais yi di topp waaw ku ne sañ nga ko sax léeg-léeg damay dem a dem ba xam nga danaa toog léeg lu man ñaari weer ñetti weer du ma wax du ma bind. damay da fi jëloon retraite sax damay waaw. fi jëloon retraite retraite forcée. retraite waay. retraite forcée. bi coow Sonko bi ñëwee ci nga génnaat. déedéet ah daanaka ci nga génnaat. non bay itam bay il faut pas lier tout toute ma vie à Sonko quand même toi aussi. ah mais loolu aussi ay fee déglu lu wax la. da jël retraite dem coow bi am après nga génnaat. pour jëlaat sa plume del wax loo xam. waaw man le principal intéressé. Mhm. loolu même waa Sonko yi ñëw nañ di ma kii tonton nangam doy y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont venus loolu Sonko ñëw na ay at i at at yàggul loolu yàggul c'est ma famille là et cetera mes amis de mon âge compte tenu de mon état de santé li nga war a wax lépp wax nga ko nangam nangam et cetera te kenn mënut a tësay bokk ma ni leen waaw d'accord waaye dinaa def waaye lii de ngeen mën a def loo lu ma metti lay doon kenn mënut a tësay bokk nag waaye bu ngeen bëggee bàyyi ci kër gi rek bu ma xëyee ndekki añ ñëw ma añ reer ma reer na nëmm sañ noppi gëmm li ngeen ma doon bëggal. li ngeen ma bañal boobu wutul na ma daal ak réaction nit ñi bàyyi leen nangam bàyyi leen paa bi gën a kii ba seen bopp ñu ne waaw léegi nag mais nanga nga seet na nga mani ma dalal seen xel ne leen lu ma def du ma def lu ma mënul du ma wax lu ma mënul du ma wax lu ma xamul waaye nag toog ne nëmm rek Mamadou Dia bi ko bokk yi ne mu bàyyi politique loolu la leen toon dafa ne le militantisme n'a pas d'âge mhm. mais loolee ça n'a rien a voir avec Sonko loolu moom bu ko waxat mukk d'accord